waaw ñu ngi ñu ngi nuyu mbooloo mi fi teewoon yëpp di leen siyaare bu baax a baax di nuyu bu baax a baax waa site bi muy 28 pro di leen ñaanal jàmm baax man la maam Thierno Diouf secrétaire adjoint général bu association takku liggéeyal xayri de tey dañoo organisé woon benn sene séminaire boo xam ni dañoo dajale woon ndaw yi nga xam ne ñoo nekk xayra di yëngu ci français ak alxuraan ak arab ñu boole leen di leen defaral benn concours boo xam ni seen ANF lañ ko tuddee ànd ko ak Serigne Khadim Ndiaye ni moom moo si doon dox ba mu toll fii nii ànd ko ak nit ñoo xam ni ci xayra lañ dëkk ndax li tax ñu ko dañ jàpp ne ñun ay ndaw lañ yoo xam ne ci quartier bi lañ dëkk former association lépp loo xam ne ndaw yi war nañ see gis seen bopp rek association bi da ci taxaw pour yëngu ci bi ñu xalaatee loolu ci la ñu waxtaanee nañ fexe ba Euh, ba ba ci novel bi ñu ñu fexe nu ñu organiser benn séminaire boo xam ni dinañ dajale ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci quartier bi yëpp tey jànge ci quartier bi fexe nu ñu organiser benn séminaire bi biñ ko biñ ko defee nag taxawale ko gis nañ si satisfaction bu baax a baax gis nañ ni mbooloo mi yëpp wuy si nañu gis nañ ni tamit euh, ndaw yëpp ñëw nañ gis nañ ni tare bi jaar na yoon bu baax a baax te aussi concours yi tamit jaar na yoon bu baax a baax di féliciter bu baax ki nga xam ni moom moo ko jël muy waa ASC di ñi nga xam ni yàlla dogal na demoon nañ final te ko muy liggéey boo xam ni ñun ñëpp ñoo ko bokk comme ñu ñëpp ñoo ko bokk rek ku nekk da si xool lu si jàpp baax loolu moo waral ñu organiser ko ay ndaw nekk fii ci quartier bi formé association te association ku nekk xam na ni dafa war di yëngu di jàppale ab goxam lépp loo xam ni gox bi bëgg na ko rek jàpp nañ ni lii ndaw yi soxla nañ ko loolu moo waral organisation bi. association bi moom yàgg nañ organiser ay bis jàpp nañ tamit lépp lu ñu organiser dina am dina dina am ñu ñu si jàpp mais ñu si jàpp ñëpp ci biir association bi rek la ñu bokkaat ndax am na ay jàpp ndax am na ay nit yoo xam ne joxe nañ fi ay kado am na ay nit yoo xam ne yëkkati nañ xaalis jox mais loolu lépp génnul association bi génnul quartier bi mais ni benn nit la boo xam ne dafa dafa yëngu si état wala nekk Touba benn responsable bu mu xam ne am na ko si Touba bu loolu amut li nga xam ne dañ koy def su moyen ni bopp lañ koy defee rawatina ñi nga xam ne ñoo bokk ci association bi ñi nga xam ne ay mag lañ bokk ci association bi taw duñ mën a ñëw bu ñu xewlee lii dañuy dem waxtaan ak ñoom ñoom ñoo ñuy jàppale mais nekkul ni état moo ñuy jàppale wala keneen koo xam ne am na lu muy yëngu wala am na lu muy représenté Touba lépp lu ñuy def jàppal ni suñu moyen bopp lañ ko defee ànd ko ak ñi nga xam ne ñoom lañ ko war a mais nekkul ni nit moo nekk suñ ginnaaw pour jàppale ñu waaw message bi may jox waa waa quartier bi yëpp rek mooy li nga xam wax ndax association bi boo gisee ni biñ ko formé ak léegi mu ngi toll si juróom-ñetti at te juróom-ñetti at lépp luñ si ànd rek dëgg rek moom moo tax ñu si ànd kon nag message bi nga xam ne moom laay jox ñi nga xam ne ñoo nekk kaa xayra gi yëpp ñu ñëw jàppale association bi rawatina ñi nga xam ne dañuy politique wala leeru ñi nga xam ne nekk nañ si Touba war a war a mën a jàppale ay seen yoo xam ne dañuy taxaw seen seen seen gox rawatina tamit aussi maire bi nga xam ne moo fi nekk te mu ngi dëkk fii ci xayra mu gestu bu waa xayra bu baax a baax rawatina xayra déeg yi nga xam ne fi la ñu féetee mu jàpp ni ndaw yi fi nekk ñu ngi góorgóorlu lépp lu ñu mën si xayra ñu ngi koy def mais moom dañuy gis ni dafay seetaan dafay seetaan ndaw bu baax a baax rawatina quartier bi ñu bi bi bi bi dëkkee ñu ngi koy woo bu baax baax di woowaat bu baax ñi nga xam ne ñoo dëkk si quartier bi muy góor jigéen mag ak ndaw képp koo xam ne amoo carte membre association bi nga fexe noo jaayante ba am carte membre association bi képp koo xam ne bokkoo nga fexe noo bokke képp koo xam ne yaa ngi woon yëngu si association bi ñoo xam ne association bi liggéey bi mu nekkoon 2014 ba léegi dara wàññeeku si ñu ngi si di di si def ay jéego lépp loo xam ne quartier bi soxla ko ñu ngi koy def kon nag ñu ngi woo ñëpp képp koo xam daal yaa ngi nekk si quartier bi ñu ngi lay woo ñu ngi woo ñëpp di leen di leen di leen tàllal suñu loxo di wax nañ ñëw jàppale ko baax ndax président bi nga xam ne moo jiite association bi ndaw la te aussi ku bëgg ku bëgg gox bi la kon nañ ko gën a jàppale bu baax a baax di remercier bu baax a baax ki nga xam ne moom mooy Xaadim la coordinateur association ATL jàpp naa ni lii muy def nii lépp loo xam ni association bi soxla na ko gis nañu da si bay bay waaram bu baax a baax te loolu rek li ma koy wax loolu rek la ndaw mënal mënal mënal mënal ab goxam bul gis ni li la sa gox bi di di war a jëriñ xoolal li ngay jëriñ sa gox te jàpp naa ne mu ngi si yoon woowu di ko encouragé baax ne ko fi mu teg tànkam foofu la rek di remercier gars yi nga xam ne ñëpp ñoo bokk ci association bi tew nii bàyyi galas mi nga xam ni kilifa la ci association bi Baye Abdou ak Bakar mii ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaare baax di siyaare waa association bi yëpp mu laay ak Moustapha Amar rek ñëpp ñoo xam ne ay membre lañ jàpp ci liggéey bi ba mu nii rek ñu ngi leen sant baax di leen gërëm ne nañ jàpp nag seen bopp ko defal maa ngi tudd monsieur Khadim Ndiaye nekk le coordonnateur de la ATL tey ñëwoon fii nekkoon doon def journée pédagogique muy bisu njàng ak njàngale euh, ñu doon jagleel fii association yi ak tamit euh, école yi xam ne nii ñoo nekk fii si Xayra. bisu tey moom dafa nekk journée bu particulier vraiment parce que daan nañ ko def euh, si mois yi di jàll mais boobu dañ ko jàmmale woon rek si si si association bi seen biir demoon nañ sax bay commencé sax di ko jàlle yi ak association yi seen biir mais dañoo gis ni Xayra ñun ñëpp ñoo ko bokk Xayra gis nañ ni élèves yu ëpp doole gi fii biir Xayra lañ jàngee. te fi ñu jàngee mooy si daara bi wala si école français bi wala boo si école franco arabe bi loolu moo tax ñun en tant que des jeunes ñu am benn vision boo xam ne nii vision éducative la moo tax ñu jël li nga xam ne mooy jeune ANAT bi boole si association yi waaye boole si tamit école yi waaye ñu boole si daara yi ndaxte jàng dañoo gis ni jàng nekkul ni français kese mooy jàng waaye jàng alxuraan la arabe la français la wolof la boo gisee question yi sax wolof lañ ko posé ak pour ñëpp mën am am le même niveau loolu daal moom mooy xam ne nii tey moo leen fi indi woon tey euh, digg may la population de Xayra dañoo gis ni euh, moment bi ñu nekk nii dañoo gis ni euh, système éducatif bi dafa commencé yàqu parce que bu ñu ko ak yeneen yeneen dëkk yi gisee ñoom dañuy jiital seen njàng maanaam seen njàng lang locale la ñuy njëkkee lu mel ni par exemple Rwanda boo ko jëlee tey mën na ni bokk na si dëkk yi gën a développé si Afrique parce que seen langue locale la ñuy bu ñu bu ñu bu ñuy jàng si moment moment yi nekk nii léegi nag moo tax ñu jël tey wolof bi def ko euh, langue bi nga xam ne moo utilisé si jeune bi pour xale bi mën a dégg baax a baax liñ koy posé mën ko répondre waaye tamit ki nga xam ne dafa ñëw di seetaan tamit moom lañ fi jëlee parce que boo jógee si kër ñëw nga ñëw jeune bi mi am loo fa war a jëlee boo dikkee lu am loo a wax ne jëlee soir ngay élève wala te li jëlee nag pour mu gën a gaaw faa nga jëlee ko si wolof bi nga xam ne nii moom nga nàmp da dañoo gis ne jàng bi Sénégal tey bu fekkoo dañ koy jaaree si wolof bi a gaaw avion loolu moom da la mais boo gisee li tax nii da nga dem jàng ba am am am bac dem lycée am sa licence dem master mais doo man def sax puso sax doo ko defar wala kii daa doo ko mën defar li war loolu mooy jàng làkk français bi ñuy làkk nàmp ko loolu mooy suñu problème moo tax kon dañuy eh, dañuy dañuy invité euh, l'État en général pour mu ñu jéem a def la tout pour indi suñu langue locale muy wala wolof ñu jëlee ko si école française bi si école arabe bi waaye tamit si daara bi pour njàng bi gën a gën a a a a jëm kaw loolu moo visu ba lañ am moo tax ñu indi tey si olof bi dugal ko baax a baax si si bisu tey bi waa kër docteur seen tànk tey fii mooy dañ def li naan euh, dépistage si VIH/Sida parce que dañoo nekk si période boo xam ne mooy période décembre mooy fête élèves bi jël nañ feet te élèves bu jëlee feet dañuy nekk si eh, si si plage yi wala ñuy nekk si hôtel yi di taxawaalu parce que dañ di feetu décembre euh, feetu Noël si décembre bi feetu d'année bi ñu dajal loolu moo tax ñu def occasion boo xam ne dañuy ñëw wut ay ay partenaires ñu ñëw si xayra di def euh, li naan dépistage si wàll euh, Sida biñ ma ko waxee nag man leen ma am na benn journée bu mag boo xam ne nii naa si ko waxee rek yëpp kon saafara location ngeen ñëw fa ngeen euh, jàppale jeunesse bi fi nekk ngeen defal leen dépistage pour nga xam ndax yow doomu jàngal bi naan sida am nga ko waaw wala déet soo ko amee nga dem a dem Euh, kër docteur nga jël say euh, traitement parce que nee nañu sida man nga ko am te doo ko wàlle ki nga xam ni moom nga ëmb bu dee jigéen la waaye mën nga am te doo wàlle ki nga xam ni mooy sa partenaire bu fekkee góor nga loolu moo waral dépistage bi ñu indi ko tey boole ko si journée bi mu nekkoon journée bu riche si wàllu éducation waaye tamit si wàllu li naan wàllu santé. message bi ñuy joxe mooy que ni ñuy woo euh, sama mbokk jeunesse jeune bi jeunesse bi yëpp ñu leen di woo ñu impliqué si l'éducation ñu impliqué wu li naan la santé. parce que mënoo dox dara sans santé mënoo def dara sans éducation dëkk bu la gën a euh, développé tey mooy dëkk bi xam ne seen jàng dafa taxaw dëkk bi la gën euh, mooy li nga xam ne seen système euh, médical dafa taxaw kon boog ñi nga xam ne ay ndaw lañ ñu ne si koñ bi même bu nekkoon ni koy santé bi wala ni koy éducation bi am nga benn xarit wala benn mbokk boo xam ne mu si nga jëm ko xëcci nga jëmal defal ñu ay acteurs yoo xam ne ni si côté boobu la ndax acteurs yu boobu tey boo ko defee sa bopp nga defal waaye tamit ndaw ñi nga ko defal ndax ndaw ñi moom lépp loo leen defal si si benn a ñaari at jàppal ni résultat yi dina dina dina feeñ dans cinq ans parce que résultat yi si kanam dina ñëw parce que gis nañu bi ñu commencé daaw koñ bi ñu réussir 100 pour cent réussir parce que gis naa ni benn bëgg jàng ak concurrence boo am si seen biir loolu moo tax mu gën a accélérer la cadence gën a organisation bu gën a yaatu élèves yi daara yi ñëpp gën a indi euh, seen xale yi ñëpp ñëw bokk si ginaar bi pour njàng mi gën a gën kon kon maa ngi sant bu baax di wax encore une fois na ñëpp ñëw jàpp si di naan euh, secteur développement bi pour indi xale yi jeunesse bi ñëpp fem bi ñëpp ñu am ay activité mën a liggéey mën a liggéey seen réew pour euh, tabax seen avenir.